Bienvenue sur Salam Vision. Salam laa leen di tegal nii jàmm ju ànd ak vision fu sori waaw mooy Salam Vision yéen xamante ni koy seetaan dama lay diggal nga teel a gën gaaw abonné ci Salam Vision. yow am nga ko faal ndax yow ku réer ma jëlee ko ñebe la sa kër doon nga doon faal am nga ko laal la ko laal yow koy kinde doon réer yàgg a baax nga laay faal la la la la ñu ngi fii Ndindi fekk fi sama mbokk taal fa seeni waxta waxtaan ak moom waaye duñ si yem duñ yem si moom dinañ waxtaan ak moom waxtaan ak waa daayira bi waaye balaa loolu damay waxtaan ak sama mbokk taalibe bi waxtaan ak moom ñu jokkalante ay kàddu Mbacke sëñ bi lay nuyu. asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi leen fay di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu seen teewaay ci ñëw gi ngeen ñëw fii. kër Cheikh Abdou Karim Mbacké di ëttu Sëñ Fallou ñu ngi leen ci jaajëfee di leen jox seen wàccuwaay bu wér wér waaw di leen bëggee nag ci màggal gi bu baax a baax a baax ak Sëñ Tuubaa waaw ñu lay rek lañ am wala Sëñ Tuubaa di ñaan yàlla Cheikh Abdou Karim yàlla yàgg ko fi tawir rek képp njabootam barki Sëñ Fallou Mbacké sëñ Sidi sëñ sëñ Mountakha Bassirou xalifa général des Baye Fall yàlla saxal leen fii kër bépp kër diine nag ñu ngi lay siyaare di jox sa wàccuwaay di la ñaanal kilifa kilifa ga fa ne yàlla may ko fa nu gudd ak wér si darajay lislaam jërë ngeen jëf. waa tey ñu bëggoon a xam màggal gi nan ngeen ko dundee ak euh, nan ngeen tëralee màggal gi parce que depuis suba ba léegi mën naa ni di bëgg dem ba léegi waa Salam Vision mi ngi fi ñëw mais xam nga olof day wax ni nit ki moom rek moo la sañ a moom xam nga ñun démb dinoo dem fee euh, mbake Balaye si téye ñu fa. ba mënuñu woon am temps pour ñëw fii waaye olof day wax ne sotti seeg def def si la parce que sëñ Cheikh Oumy yaakaar naa ak sëñ Abdou benn la kon bu nekkee foofu day mel ni ñu ngi fii waaye bëggoon na noo xam depuis barki démb ba léegi lan moo xew fii nga xam ne mooy kër sëñ Abdou Karim. waaw daan dañuy dolli santaat yàlla bu wër bu ñu yàlla boolee ñu nekk si njabootu Serigne tubaa ku ne xam ne sëñ Abdou Karim mooy borom makaarimal axlaa waaw sëñ Abdou Karim nag maam li ñu jàngalee moom la lislaam bëgg. muy makaarimal rafetal yërmande jaam yi ci biir jàmmi yi bokk benn maanaam benn pas-pas maanaam liggéey bi nga xamante ne Serigne Touba sunu yaakaar teg ëllëg moo nu ko won muy la màggal gi Serigne Touba nag nan leen ma si santale yàlla loolu Serigne Fallou woote loolu Cheikh Abdou Karim Mbacké woote lépp képp njaboot tamit ci noonu ngay fas yéene maanaam doxee mooy cant gi daal maanaam moo waral ñu ñun suñu yitte yëpp maanaam ñu dagg suñu yitte yëpp dagg suñu temps bi yëpp maanaam pour sàkku ngërëmal yàlla ndax xam ne lii nii ne maanaam ku yàlla dimbalu rek mënoo koo waaw mënoo mënoo ko am dimbalu yàlla dëgg la nga nekk góor yàlla teew ci màggal gi jël sa laxasaay jël sa addiye jël sa doole jël sa ñaq def ko ci waaw ànd ci cant gi nag waaw waaw di sant yàlla bu wér ban suñu borom boole ci cant gi waaw ndax sëriñ Touba fa mu jaar ba am lii ba ñëw ne dañ ma santale yàlla ñun dañoo war a sant yàlla bañ bokk ci cant gi waaw danaa jërëjëfe sëriñ Touba barki sëriñ Touba waaw. waaw bu ko neexoon sax mu yemale ko si boppam sa waay parce que dama koy faral di wax nit ki la jagal foo man di toll rek dee ko tiitaroo parce que bëri parce que fa la jëlee. ba jagal la sa yeneen moroom ñi ngi fa woon yoo xam ne mënoon na leen a jël jagal leen waaye yow la ko yàlla booleel ba mu jagal la kon mën naa ne yéen daayira bii ñi fi nekk ñëpp ay éléments Serigne Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaaq lan waaw bi njabootu Mouhamed Mbacke la da doomu Serigne Abdou Karim Mbacke Falilou waaw jiit gi nag mooy bëgg fàllu moom moo nekk jëwriñ général man maay Modou Mbaye man maa topp ci moom am na yenn jëwriñ naa ci taf tafaatal ay Maodo moom moo nekk jëruñu euh, fii nu mu tuddati Dakar la nekk euh, cité douane waaw amaan na ay jëwrinaat ci biir ñoo Amet Mbay mbaay Mor Petit waaw Keejeng waaw ay ñoom Pam ñaa nekk ay jàmbaar ci waar wi wax yàlla liggéey bi ay Mor Mor moo nekk ci waañ bi moom feel ne ay Grand Dakar fàllu mel ni ni ngay waxee seen daara bi comme ñi ngi ñi may xamuñu la te tur daara bi ah dama bëgg nga wax leen ñoom daayira bi ñaata élément la am parce que man mii di wax ak yéen xam naa daayira bi. xam naa xam naa daayira bi li ci nekk parce que élément yu bëri bëri xam naa leen si waaye ñi may seetaan te bëgg a xam daayira bi ak yaatuwaay bi ak makkaan yi ñooñu laa bëgg nga wax leen fan la. waaw daara ji nag mu ngi nekk golf golf sud la nekk Touba golf waaw golf sud la nekk ah, ci wetu terrain basket bi si ginnaaw mairie bi noonu. fi la daara ji nekk daara ji am na beneen boo gisee ma ne am na beneen joorin parce que daara bi ñaari daara la ci biir ñaari daara bi yenn daara maanaam das liggéey bi dañoo dem ba ci biir ñu tofantal ko jël beneen ay tout tànk beral leen pour wan leen liggéey bi ñi nga xamante yaa yàlla dogaloon na ñu war ñu tarbiya leen wan leen ak Baye Fall léegi ñooñu leen détaché jox leen mbooloo pour ñooñu doxal mbooloo mi wane yoon wi nga xamante ne mooy yoonu maam Serap Fall waaw. ci biir ñoo xamante ne ay membre individuel mais ay jurul lañ ci biir kër gi waaw doon ñooñu ñu ngi ci biir kër gi. Hmm. xam nga barki démb rek maa ngi koy démb rek su dimanche su ma jiwul maa ngi koy wax maa naan gis nga euh, Serigne Touba dafa am li gën a seer li gën a garaaw mën naa ne tey jii boo déggee état di wax naan employé des jeunes tey ku si mel ni Serigne Abdou Karim Mbacké ku si mel ni Serigne Cheikh kër Serigne Cheikh Oumy Mbacké mi nga xam ne dañ faa dañ faa jógee ñooñu rek doy nañ doy si employé des parce que tey boo gisee ku si mel ni Serigne Cheikh Oumy Mbacké ma demee kër ga la ma fa gis si ay mbokki taalibe waaye li ma fa gis ay tout tànk te ñooñu ñëpp moom moo leen di moo leen yor moo leen di jàngal moo leen di dundal yére bu rafet daal li rafet moom moo ko jënd tey kooku bu ñuy wax employé de seen wala bu ñuy wax liggéeyu ndaw ñi ñooñu day baax ñu génne leen dem loqati leen ñëw teg leen si penc mi fas yéenee ànd ak ñoom liggéey. loolu da si baax ku si mel ni Sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarim Axlaaq tey mu jiite da daayira bu toll nii nga xam ne tey diwaanu Géejawaay Pikine foo mën di dem am ngeen fa élément ah ñooñu noonu tey boo xoolee ñin dajale te nag daayira bi yemul si loolu bari na internat yoo xam ne tey képp koo xam ne bëgg nga sa doom mokkal alxuwaan waaye bëgg nga sa doom tarbiyewu waaye bëgg nga sa doom xam si yoon bi dara boo fi indee sa doom ñoom ñoo koy jël encadré ko teg ko si yoon ba mu mel ni yow ni nga bëgg. Mhm. waaw danaan santaan nañ bu baax di ñaar ñaanal seebu këram yàlla yàggal ko fi te wér yàlla yàggal taxawaayam may ko wér ak kàttan ak bépp jëwriñ nag bi ne ci biir kër gi. tàmbali ba ci kaw ndax sunuy bàyyi lañ ci liggéey bi te ñooñu jiitu ci liggéey bi te maanaam xool ñoom ni ñuy doxee moo tax ñu am fitu dox ndax ñoom bu fekkoon ne dañoo am leneen lu ñu wane kon duñ leen roy ci loolu waaye wane na ñoom Pastef ak bëgg-bëgg kër sëñ Abdou Karim Mbacké sëñ Abdou Karim nag cuune du ànd ak moom hmm. yaa fus du ànd ak moom yambar du ànd ak moom sëñ Abdou Karim képp ka ànd ak moom jàpp na ne góor yàlla nga hmm. même si yaay faal yi ànd ak moom sax boo xoolee xam na ay toxoram maamu laan lañ amul lu ñuy ragal. Mm. te lépp lu ñu dund rek dëgg dong lañ si dëgg rek lañ koy teg. ok c'est vrai wante si Sëñ Abdou Karim doxul ay njuñ gisee waxam ci li muy wax si lu bëri maanaam ci ndimbal si jaam bi rek lay waxee. Mm. li ma la wax ne emploi des jeunes laay dégg nga koy wax ñun employé Sëñ Fallou lañ ñun Sëñ Abdou Karim moonu moom amuñu kàddu googu buñ ci wax si sëriñ bi. état bi nag moom mooy xool rek bu fekkee ne bëgg na liggéeyam dox ndax jamono boo xoolee liggéey bi boo bëggee Sénégal avancé foog nga waxtaan ak kilifa diine yi ndax ndigal li noo ko yor kàddu gi ñoo ko yor xéwal geeg gi ñoo ko yor ndax ñoom la ko suñu jox ñoo yore àdduna. njabu njabu kër diine yi nga ñu am Sénégal ku bëgg sam réew dox di nga kilifa diine yi waxtaan ak ñoom. conseil des ministres waaye conseil des kii des des des des des guides religieux la ñu waroon a def. ndax ñooñu boo leen dégloo ak xel mu del ak yarak ak teggin te nangoo déglu ndigal la nga jiite day avancé mhm. ndax da xool tey ji nga jiite ay daayira de daayira yi mën na daanaka euh, dix mille wala sept mille daayira musoo soo dégg wala nga dégg nga xëy suba rek ñu ne la diw ak diw ña ngay rent lépp na nga koy ordre te bu ndigal kàddu jógee ñëpp koy matale kooku boo bëggee avancé sim réew na nga koy déglu balaa balaa balaa balaa sama cameraman bala ñëw si li nga xam ne mooy añ bi ak li nga xam ne lan demee màggal moom la mbokki taalibe yi war a defar dafa am benn question boo xam ne dama ko fee denc te tey laa ko bëgg a tàmbali te ma bëgg xam Sëriñ Tuubaa lan la la defal. Sëriñ Tuubaa lim ma defal Sëriñ Tuubaa ma defal rëy na ndax man dama naan Sëriñ tubaa dafa ma dindi ci réer ci lëndëm maanaam woon génn ma ci lëndëm dugal ci leer. man sëñ Tuubaa loolu la ma defal daf maa génn ci lëndëm indi ma ci ak leer ndax maanaam boo xoolee naa sëñ Tuubaa génn ci ak lëndëm bu la yàlla dimbalee nga bokk si njaboot sëñ Tuubaa li ñuy njëkk def ci yow mooy xol bu laab xol bu rafet dangay bëgg ñëpp oyof toll yéen a jàmm loor bokk ak ñi ndax sëñ Tuubaa partagé lay jàngal nit boo dégg ñu ne yoroo jikkoy murit mooy loo yor rek joxe nga ko te loo xamante ci lu rafet wax nga ko waaw kooku sëñ Tuubaa ku ànd moom noobul ngay doon. waaw man question bi ma ko posé sax dafa mel ni daf maa xaw a commencé dal parce que man su nit di wax sëñ Tuubaa li ko defal day mel ni man lay waxal quoi. parce que man bokk naa si ñi nga xam ne éléments yi Serigne Touba defar ba nu jàkk man si laa bokk ni ma mel ak ni ngeen may gisee ak lépp lu ma mën di am si àdduna Serigne Serigne Touba mhm. à travers sama sama sama wasila sama buntu si seexunaa si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul muy Ibrahima Faty Issa sa Beyti Mbàkke nee naa ko man dama koy tagg foo ma di ba bàyyi moo doog Aydara maamu Cheikh Ahmadou Kara Mbàkke noonu nii waaye bala maa dégg si yow ak ak li nga xam ne moom moo war a xew fii tey lan demee màggal nan ngeen ko nar a tëralee plan bi. waaw lan la màggal moom moom moom ba tey rek maanaam nit ñi demaguñu. Ah. waaw du tee ni ñuy def dañ koy def bu ñu xëyee dinañ defar suñuy ndekki defar suñuy añ defar suñuy jogone ku baax ñu defar suñuy reer yu baax hmm. ba nit ñi daanaka nit ñi ñibbiwuguñu rek duñu bàyyi benn rek ndax maam cant gi moom tant que nit ñi yeweeku ba ñibbi hmm. mënagunoo bàyyi hmm. ndax waaw daa mel bu ñu bàyyee rek day mel ne waaw magal ga taxoon magal ga rek lañ ko yemale cant gi moom ko Serigne Touba yorul luy jeex Serigne Touba du jeexal waaw du jeexal ndax maanaam na nga xool tey ji même que Serigne Abdou Karim boo fa dugg see même bu dul li na yaa ngi ci màggal nit ñi moom boo fu ñëwee chaque jour da ngay jàpp ne yaa ngi ci moom Serigne Abdou maam loolu la wone makaarimal tarbiya maam yaatal joxe bernde waaw te du si mos a nag loolu moom si la nekk ba képp ku njabootam boo xoolee képp ku njaboot Serigne Abdou Karim Mbacké boo ko xoolee xam ne li li ko maamam jàngal baayam jàngal ko ci la nekk muy yar ak teggin xam le dox ci yërmande rafetal di yor loo yor joxe ko. Hmm. waaw kooku loolu moom ma yoonu. loolu weesoo ñu ngi lay jaajëfal di la jox se wàccuwaay. Ah, jërë ngeen jëf te teewaay bi ngeen teew. waaw kon sama waay hmm. gis nga comme ni nga ko gisee rek tey ñu ngi woon fii nga xam ne moom mooy makkaan mi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil moom la ñëpp yaakaar waaye tamit fii nga gis ni tey doomu Serigne Abdou Karim Mbacke borom Makaarimul Axlaaq moom moom fi dajale gaa yi. moo leen fi boole moo leen fi moom moom moo leen fi boole te moo leen fi tax di ñëw ginnaaw bu wàllu Sëriñ Abdou Karim Mbacke wéyee maa ngi la koy wax sànq ci samay biir wax fii dafa nekk benn daayira boo xam ne yemuñu si daayira waaye tamit yemuñu si euh, tey màggal dafa jot rek ñu ñëw rek ñëw kër sëñ bi dajaloo fa après màggal ñu dem ñibbi déedéet daayira bi ay daayira yi dakaar Dakar fépp foo ko fa laajte dinañ la ko wan te man li ma si gën a neex mooy daayira bi wax naa ne am na am na am na ay daara si biir waaye tamit am na université si biir yow mi nga xam ne yaa may seetaan yow mi nga xam ne yow yaa bëgg sa doom mu jàng arxuwaan waaye yow mi nga xam ne yaa bëgg a sa doom tey boo boo ñu contacté ñun dinañ fexe ba boole la waa daayira bi incha allah ñu tegal la si sa doom si éducation bu baax tegal la si ay normes yu leer yi nga xam ne ñooy jëmale murit kanam sama caméraman topp mu ñu dugg si biir à <laughs> biir sëñ Abdou Karim kër sëñ Abdou Karim ngi jaaroon fee si daara ji fekk fa ay mbokk taalibe waaye duñ si yem tamit tey ñu ngi waat fii si biir kër sëñ bi fas yéene fee fekkaat samay mbokk taalibe wax naa ne ñi moom samay xarit lan parce que man ak ñoom ñoo bokk leen bëgg te ñoom ki nu yaakaar tey ak ëllëg kooku leen ma dippee kon xam naa sama diggante ak ñoom ak sama waxtaan ak ñoom dina nekk loo xam ne lu neex la du ma si yem maa ngi sama wet ak benn Baye Fall dugge dëgg damay ànd ak yéen ma nuyu ko Baye maa ngi lay siyaare waaw siyaar baax kilifa gi si loo nekk mbaa yaa ngi ñu ngi sant bu baax a baax a baax. naka yi tey. waaw sant si Abdou rek. nan ngeen dundee màggal gi. waaw màggal gi moom maam lépp lépp rek. waaw Sëñ Fall teg na ci loxo. waaw dund nañ ko ni nga ko war a dundee bu baax a baax a baax yëg nañ ko bu baax a baax a baax waaw di ngi sant Sëñ Fall bu baax a baax. waaw ndax lépp nu ko nga xamante bi noonu la ko bëggee woon rek ci coobareem waaw moom mi nga xam ne mooy dooleel di kàttanal ak lépp waaw motaleel na lépp li nga xamante ni daal si màggal gi ni mu ko nammee rek waaw Sëñ Fall motaleel na ko noonu waaw barke Sëñ Tuubaa waaw màggalal gi moom màggal na ko ci anam wa nga xamante ni noonu lañ ko bëggee te si Abdou Karim Mbacke moom suñu Fallu mi nga xamante ni moom lañ yaakaar tey ak ëllëg nga xamante ni mooy suñu mooy suñu buntu si Sëriñ Tuubaa maam lépp li nga xamante ni daal moom bëggoon na ko ci màggalam gi muy màggalug maamam gi lépp Sëriñ tuba ak Sëriñ Fallu Mbacke waajuram bu góor wi motalal na ko an mu ànd koog ndongo yi def ko ni ko bëggee waaw ci fii ci kër Sëriñ Tuubaa gi di kër Sëriñ Abdou Karim waaw ma xam ne daal. ginnaaw dama ñëw gis leen seen buntu buntu bu ngeen toog sànq ba léegi damay romb mbokki taalibe yi ñuy ma ñëw gis si kër gi mel ni tey la màggal loolu secret boobu noonu sëñ bi moo ko def si yéen wala yéen yéen yéen a ko kii seen biir wala. waaw de kilifa gi lépp sëriñ bi la lépp sëriñ bi la ñun ndongo yi moom daanaka fi ñu yemloo rek la ñu yem wante lépp sëriñ bi la kër gi moom nii nga ko gisee nii mu demee nii mu demee màggal ak bu dul màggal yëpp nii mu demee lay demee waaw ndaxte day siñ faalu bu biir day siñ faalu bu leer fi mu toll nii bu màggal gi doon lu mat lu tolloo ko màggal gi jeexan ba am lu tolloo weer boo fi ñëwee nii nga xamante ni ngi fekkee doomu aadama yi ni ngi leen dalale nii noon nga ngay fekkee ñu leen ñu dinañ ko dalal waaw ngir ñëpp a xam Mbàkke li mu yor waaw jaam ñi rek a tax waaw ngir dimbale jaam rek moo tax suñu faal teg ci barab bi daal waaw mais lépp daal sëriñ bi la waaw loolu suñu fàllu bu loolu weesoo est ce que mën nga maa waxal tuuti sa jaar-jaar si digganteeg sang bu tedd bi sëriñ Abdou Karim Mbacké. waaw sëriñ bi loolu bu ñu koy wax dina yéeme trop Baye Fall. bëgg naa nga ñëwal ma si tuuti rek. waaw dina dina yéeme trop ndaxte maam sëriñ bi moom kenn ku ne ni nga digg si moom daal moom lay soob. wante ah, ak yëg-yëg daal ak yëg-yëg yi nga xamante ni moo ñu boole. lu ndaw mën naa ko ci yàlla bi nga xam ne moo ñuy firmé te am maam sëriñ bi rek mooy baaxal waaw te mooy na ma boole woon moom man maam seex mi man moom na ma boole ak moom ànd ma ngir ma ànd ak moom si liggéey bi wante eh, ci ni mu ci kër sëñ bi waaw buñ koy wax daal moom suñ xol day toog trop barke sëñ Fallou moom loolu moom bàyyi ñu ko tuwaat baax a baax waaw li ngir li boole moom moom Fall waaw moom la daal. dafa kawe waaw kawe na lool kawe na lool barke sëñ Fallou kawe na lool buñ koy wax maam day mel ni waaw. waaw suñu xol lay tooy laal barke Sëriñ Fallou Mbacké ay ca tawféex ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye tamit du ma si yem am na sama benn mbokk taalibe bu nekk sama wet dama koy bàyyi mu nuyoo tamit maa ngi lay siyaare nabi sëriñ bi ñu ngi lay siyaar wàllu tawféex si la nekk mbaam nga jàpp ñu sant bu baax a baax lan nga gi ah gi sant sëñ Karim bu baax a baax rek waaw ah, ndax lii yëpp moo ko waral ndax démb amaana am na fu ñu nekkoon tey jii moo ñu jindi waaw ah, ba ñuy takk ndeer di liggéeyal Serigne Touba kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér bak waaw. dama bëggoon nga wax mooy li nga xam ne moo nekk ci histoire màggal gi ak lan moo waral màggalu Touba dëgg dëgg dëgg murit di ko màggal. waaw màggalum Touba bi de sëñ Bamba dafa woote ngir ñu santale ko suñu boroom waaw kon nag sëriñ bi moom bu wootee ngir ñu santale ko suñu borom démb moom metti woon na kon tey jii nag bu neexee dañoo war a gore ngir santale sëriñ Touba lépp luñ te am suñuy alal ak lépp. ñu jaayante jox ko ngir sëriñ bi ngir démb ba list ba diine ji laajee bakkan sëriñ bi moo moom moo demoon bàyyi fi njaboot gi kon tey nag bu dellu see nag indi màggal gi kon dañoo war a gore sant santale ko suñu borom. loolu la weesu man sama caméraman dama fi gis lu garaaw loo xam ne eh, nga da wax naan Baye Fall yi ñoom jànguñu ñoom Cheikh Ibrahima Fall leen gëm wala mais depuis démb ba ma ko décortiquer depuis ba léegi maa ngi ko laaj ay mbokki taalibe xam ne ay isbu tarixa ma ko firil mënuñu ma ko tekkil yaa ngi dégg kii Baye nga xam ne xamuñu li nga xam ne moo nekk rôle lu Baye Fall waaye ñu fan la Baye Fall yay yegg dëgg-dëgg parfois da ngay dégg ñu jaawalaan Baye Fall jàngul mais Baye Fall du ñàkk a jàng Baye Fall ku yàlla nam moom moo koy doon yaa ngi dégg mbokk taalibe bii li ko laaj tey mën ma li nga xam ne moo waral sababu màgg te du si yem de damay continuer ak moom laaj ko sa digganteeg sëñ Abdou Karim Mbacke. waaw suñ diggante sëñ Abdou Karim Mbacke moom dañuy sant bu baax a baax ngir déemu amaana doon leen dund dund zaahir am fuñ nekkoon waaye tey jii yàlla ak moom moo ñu dimbale bañ baax kon nag dañ koy ñaanal moom mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaw ngir def na lu ngir def na si ñun moom loo xam ne ndey ak baay def ko si ñun kon dañoo war a gore nag di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak ba sëñ Fall. balaa loolu weesu weesu sama cameraman comme ni ma ko waxee sama question bi Serigne Touba lu mu la defal. ah Serigne Touba de dañ koy sant rek. waaw ñun bañ juddoo moom Serigne Touba ñu boppam moom ñu doon murit. waaw ñun boobu day dañuy sant Serigne bi rek. waaw Serigne bi moom lu ñu defal moom ñu kaa wax. waaw ñu dañuy dëkkee lépp lu ñu jëf rek. dañ koy rëdd si ndox waaw duñ ko bind mukk si ban lépp luñ jëf rek si ndox lañ koy rëdd effacé ko jëfalaat ko leneen waaw suñuy alal ak lépp sëriñ bi mooy borom. rajo jaajëfal naa la sama mbokk Kébermaan gis ni comme ni ma ko waxee du si yem dama gis sa néegi nii sama si sa wet benn yaay faal boo xam ne taaru na macha allah sañseem yiiw. maa ngi bi naka la. fan nga jóge màggal si. man de jugeen sol laa jóge eh. ma ñëw màggal si Baye Abdou Karim Mbacké. <laughs> depuis kañ nga jógee Ziguinchor. ñëw naa depuis dimanche bi. Hmm. waaw ngir sëñ Abdou Karim Mbacké. si Abdou Karim Mbacké nag ba tey mënu ma fexe ba gis ko ba léegi nii. barke Serigne Touba bi ma doonee murit ba tey. Hmm. man man Serigne Abdou Karim moo tax ma nekk murit hmm. mais mën na sept ans may jaabante fii mais mun ma fexe ba gis baay Abdou Karim Baye Abdou Karim rek laa bëgg sama biir xol wóor na Serigne moom moo tax may def lii yëpp waaye mun ma fexe ba gis ko. dama bëgg a xam yow nan nga def ba dugg si murit bi ak nan la Serigne Abdou Karim dikkee. murit bi moom gis nga xale bu góor bee Mame Thierno moom moo newoon Ziguinchor di jaay di ñëw suñu kër. chaque jour bu ñëwee mu may expliquer mbiru murit ma dem nag ba bëgg lool mbiru murit léegi ma ne ko ma naan ko bii dem Touba nañu ànd noonu la ma àndee Touba nag bi ma àndee Touba mais avant ma doon ñëw veille bi ma nar a ñëw dama gént bay Abdou Karim mii mu jox ma lu ñuy arrosé fleur nee na ma naa ko arrosé léegi bi ñuy dugg see Touba ma gis photo bàyyi Abdou Karim ma ne ko mam Thierno mu nee ma ne ko man dama kii laa gént kii kan la mu nee ma. mu ne ki may kii Serigne Baye Abdou Karim. ndeysaan yow man sama xol sax yu commencé tooy parce que gis nga Serigne Abdou Karim Mbacke borom makkaale wax naa la gis nga lu bokk Cheikh Serigne Touba lépp lu bokk Serigne Touba rek. wallahi day dëggal comme li ma doon wax sànq rek Serigne Touba kenn la Serigne Touba kenn du moom gis nga gis nga sama mbokku taal bi nii c'est la première fois muy ñëw Touba. sëñ Abdou Karim moo ko jaral mu ji jógee Ziguinchor ba fii te yàlla xam na ne amaana ñëw na sax gisul sëñ bi gisul sax sëñ bi xam naa incha waa waa waa ndeysaan ma dajeeg ak ay taalibeem ma leen di laaj ndax mun naa foto ak ñoom ndax rek bëgg a bàyyi Abdou Karim wër na Serigne Bamba. waaw ba nga la mais mu ay tànkam ca la ca la amee ndimbal waaw ndaxte borom kër gi dafa wax ne fi ku nar tam ndimbalu Serigne Fallou doo fi teg sa tànk si ëtt bii muy wax ja nga xamante ni moom wax ju wax ju kawe la kon maam loolu ñàkk geeg gis-geeg lépp Serigne bi xam ne lépp. ndax yaa ngi ci ëttam bi xamante ni moom mu waxal boppam ne képp nart am ndimbalu Sëriñ Tuubaa tey ëllëg sama kër gi man Abdou Karim doo ko teg sa tànk waaw kon loolu rek ndimbal la yaay booy boo boo ko war a gis dañ ko gis. bu loolu weesoo dama bëggoon a ñëw si yow yow si si ban diine la nga nga nga ne. man musulman la en plus soose la wóor na Sëriñ Bamba te tamit à chaque fois saa yu ma jullee damay ñaan yàlla parce que Baye Abdou Karim mag la mais ñaan naa yàlla. Baye Abdou Karim yàlla na ko fi yal yàgg yàggal te te bëgg naa ko jëf xam nga yàlla moo fi nekk yàlla man mi sa tey yàlla mun na xëy rek jël ma mais ñaan naa yàlla Baye Abdou Karim balaa may sangoo suuf ma gis ko barki Serigne Touba loolu rek laa bëgg. non moom kum namul dimbali doo toog si këram gi moom yaakaar naa jëmi Serigne Cheikh Mahamadul Fadil la jël ba jeex tàkk te mën naa ne Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makala Fala boo ko namul gis wala bu la namul dimbali am naa yaakaar ne ëttam bi doo fi teg sa tànk. mbokk taalibe bi li nga gis yi doy na waar trop. waaw parce que noonu la demee rek naam yaay booy li muy def nii nekkul nga xamante kenn da koy forcer waaw kenn du ko forcer ndax rongoñ waaw ko forcer tuur ay xéwal kenn du ko forcer maanaam sëriñ bi moom li ma la li ma la wax léegi rek ëtt bii nga xamante mooy ëttam bii dafay nekk ngir liggéeyal sëñ Fallou ak maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ndax moom Baye Fall la Cheikh Abdou Karim Mbacké Baye Fall la waaw loolu ba dama la ko xamal bu baax a baax a baax a baax boo gisee këram gi xool ku lu xam ay Baye Fall nga bi gis ak ay Yaay Fall maam kii maam ndimbal gi mu am mooy teew gi mu teew ndaxte sëriñ bi moo lay tànnal boppam sëriñ moo lay tànnal boppam si kaw nga bokk ci ay ndongoom ci kaw nga bokk ci ay soppeem ak lépp waaw ndaxte ku narta am ndimbal suñ tubaab doo ànd ak moom te ëtt bi ma wax moom ku narta am ndimbal suñ faalu te ëllëg dafa te sa tànk barke Cheikh Abdou Karim Mbacke mu suñ faalu waaw loolu biir na weesu maam Thierno Birahim kaay nii parce que dafa am lu am solo loo xam ne dama la ko war a laaj parce que yow mii tout tànk nga sën nga waaye référence nga si yoon bi fan nga jógee ñëw ñëw ñëw ñëw fii. waaw moom maa ngi jógee Darou Moussi foofu laa jógee mais si ngeen soor lañuy liggéey laay liggéeyee. laa xamante ne moom nag mais moom dafa bëggoon a gis ne Abdou Karim tax bi mooy quatrième fois muy magal si. boobu léegi mi ngi koy gis mais mooy loolu. ba léegi gisagu ko chaque jour nag mu ngi ñëw di ba day gis sa taalibe di leen laajte mais danaa ko sëñ bi mu génn mais day fekk génnagul loolu. gis nga fi nga teg sa tànk bu ko bàyyi mukk. Ah. Serigne Touba ndawam fu mu nekk na ko fa nekkal te li nga def nii dafa am solo lool dëkk Touba waaye yemoo si dem ba Ziguinchor dafa liggéeyee fexe convaincre doomu aadama ba mu ba mu gëm fi nga bokk fexe convaincre doomu aadama fexe ba indi ko Touba ngir bëgg gi mu bëgg sëñ Abdou kii mën naa ne même bu gisul si Abdou Karim sax tey fi mu ëtt bi mu nekk nii nañ na jàpp ne fi mu tax too taxaw nii sëñ Abdou Karim mas na fa taxaw loolu rek mbégte la ak yëg-yëg la. waaw loolu la sax moom loolu la tax tey jii bi ñu ma il faut ñu demaat kër Sëñ Abdou Karim bi ñu demee tey ji ñu ngi nii encore ñëw nañ fi mais gisaguñ ko ba tey mais gëm bu lii nii nii mu ñu wax wax fii rek dina tax ba dina ko gis incha allah parce que kii nii yor bi nee na ma bu soobee Serigne Touba dina ko gis ma ne ko waa loolu moom gëm naa ko xam naa ne bu ñu ko tuddee moom bu soobee nabi dina ko gis te xam naa ne bu soobee yàlla dina gis Sëñ Abdou Karim xam na ko bëgg a gis nag ba ba léegi gis ko mais dafa bëgg Sëñ Abdou Karim billaay wallaay dafa bëgg Sëñ Abdou Karim billaay incha allah Mbacke sax xam nga instant yi ak màggal gi nii ak yitey màggal gi yow sama caméraman xam nga ne Mbacke Balla day day jafee gis lool mais incha allah bu ngeen fi toogee léegi du yàgg te day ñun ñii di wax ak yéen sax incha allah bëgg nañoo def ak moom waxtaan boo xam ne bu yaatu la bu ànd ak kàttanu suñu borom bis buñ koy def ak fu ngeen mën di nekk bu leen gisee nañ fexee ànd ak yéen yóbbu leen ba sëñ Abdou Karim parce que yow mii moom ku la gisee léegi sëñ Abdou Karim defal na yàlla parce que li nga nekk nii du tricher te nit moom booy jooy si moom dalaa jaral te li nga nekk li nga def nii du yow kese yaa ko def bëri na bëri na bëri na ñoo xam ne sëñ Abdou Karim jaral neen jar na lu raw li ngeen def nii parce que sëñ Abdou Karim moo mel noonu mën naa ne Cheikh Mouhamadul Fadel mi nga xam ne moom moo nekk waajuram lépp loo gisoon si moom lépp loo mosaan dégg si moom tey mu ngi si jëmm jooju noonu soxna si ginnaaw bu loolu weesoo sa kàddu gu mujj laa bëggoon. sama kàddu gu mujj daal mooy man kay aw ma lenn lu dul bàyyi Abdou Karim di ko ñaanal rek yàlla na fi yàgg te na xam bu am na ay soppeem ñu ko bëgg wër na Serigne Bamba loolu rek laay ñaanee te ñaan naa yàlla yàlla tak màggal tubaa ma am kattan bi nga xamante ne dinaa mën a ñëw ba Touba di ko ziyaare te di ko màggal man man bi ma duggee këram rek sama xol sedd na barke Serigne tubaa wóor na yàlla man bay abi këram rek laa bëgg sama biir xol. fi mbokki taalibe yi waaye tamit duñ si yem ñu fekk si ki nga xam ne mooy kilifa kër gi ñu fas yéene waxtaan ak moom laaj ko li nga xam ne moo waral màggal gi waaye tamit duñ si yem laaj ko ak kër gi ni muy tëddee ak depuis màggal ba léegi nan lañ dundee màggal gi ak lan mooy dëgg dëgg dëgg neexu màggal gi Mbacke maa lay siyaare. waaw ñoo ngi delloo siyaare bu baax a baax a baax. naka yi tey mbaam nga jàmm. waaw ñu ngi sant ñu ngi sant bu baax. nan nga màggal gi. waaw màggal gi de comme ñi ko ñëpp dindee rek ndax euh, sëñ Tuubaa mi nga xam ni Euh, moom la yàlla dogal mu woote màggal gi dafa ne nañ ko santale yàlla la mu yëg nag ba woote ni nañ ko santale la yàlla loolu lu koy maane la ndax ba àdduna sosoo léegi nit ñi dëgg la ñu ngi sant yàlla waaye jékki-jékki woo say ñooñ wooloo am daal ni santale leen ma yàlla loolu sëñ Tuubaa ko ñu ko def te bi mu ko defee léegi wax dëgg yàlla gis nga màggal gu jot sëñ bi la mu waxoon euh, mag ña mooy màggalkat du tabaski waaye moo gën ci yéen murit ab tabaski daal leen képp koo xam ni sama mbég sa bég la bu bis bi dellusee bu fekkee ñaari xar nga am nanga nga reyal benn bi tabaski muy maam maam Ibrahima benn bi nga dencal ma ko bu fekkee benn nga am te bokk sama ñooñ nag nanga ko denc ba màggal ga ndax moo gën ci yow waaye mag ñe bu njëkk sax doon nañ ko tuddee tabaskiwaat waaye baatu màggal Sëñ Tuubaa moo ko génne ci làmmiñam daal ne buñ nee tabaskiwaat day mel ni bidaa te sunu maam Ibrahima eh, lii muy def day sunna soo xam sunu borom moo ko joxoon ndigal ngir mu rende doomam far bi mu ko waree rendi ci ndigal li mu jëfee ak doom ji jëfe ko ci la ko sunu borom weccelee doom ji am xar muy sunna soo xam ne ñun jullit yàlla moo nu ko dimbalee ñu koy ñu koy ñu koy feddali saa su ne di ko def waaye Sëñ Tuubaa nag dafa woote ni nañ ko santale yàlla daal di woo mag ña ne leen bis bi moo gën ci yéen murit am tabaski daal di wax képp koo xam ne yor nga ñaari xar nang ma reyal benn bi ci euh, tabaski bi waaye beneen bi nang ma ko dencal koo xam ne nag menn nga am te di murit mën nga ma ko dencal ba tabaski ba ba màggal nga xam ni kon sëñ bi fonkoon na màggal bi ko mag ñi doon wax loolu mu ne nañ ko tuddee ak màggal daal ni bis bi nag képp koo xam ne jàppale nga ma ci lu toll ne ginaar ba ci giléem na nga xam ni mboolem yool boo xam ni moom nga ci doon sàkk sunu borom dana dana la ko defal ndax xeebu ci ginaar waaye yéemu ci giléem yàlla nag dimbali na murid yi ba saa su nekk dégg nañ li nga xam ni moom la Sëñ Tuubaa wax mooy kër goo dem di nga fa gis ganaar danga fa gis mboolem li nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo ba ca giléem fii boo fi ñëwee defar nañ ginaar defar xar defar ay bëy defar nag defar giléem kon ndigal la sëñ bu joxe woon euh, daa am leneen lu ci tàbbiwaat ndax sëñ bi dafa ne woon fukki fan ak juróom-ñett bu agsee ci weeru safar mooy bis bi nga xam ni ci la génnewoon woon Mbàkke Baari jëm euh, ci tukki ba di wuy ju tubaab bi moom la ñuy màggal nii mooy 18 safar. li sëñ bi lim sax dama la fi kii parce que xam nga maa ngi wax sànq sama caméraman bi xam nga ñu bëri dañoo jàpp ne euh, Seexul Xaddim bi mu demee ba ñëw lay màggal. moom bi mu demee ba ñëw lay màggal wala avant muy dem la màggal. maanaam sëñ bi dafa nii dem gi la ñuy màggal ba àdduna sosoog léegi nag mosoo gis koo xam ni yow da ngay waaj am xare di màggal bis bi ngay waaj di dem ndax da ngay dem ba daan kay doog a ñëw bàkku woo say ñoon ni leen bis bii laa daanoon nañ ma nañ ma bàkkul waaye Sëñ Tuubaa bis bi muy bi muy demee bis boobu lay màggal. moom xaarul ba am ndam. xaarul am ndam di bàkku. moom ba muy dem fekk na mu téye ndam la. Mm-hmm. dana la ci nettali lu yéeme nag. Mm-hmm. ku ñu wax sëñ Ahmadou Ndiaye maa béy. xisa boobu xëy na di nga ko dégg ci lu ñu bari dafa doonoon notable bu mag bu nekkoon ndar yàlla dogal mu am lente woon ak sëñ Tuuba moom sax du woon murit moom sëñ Amadou Ndiaye Mabéye taalibi Cheikh Ahmad Tidiane woon waaye doonoon kilifa ci ndar bi bi ñëwee ndar yàlla dogal euh, moom bokkoon na ci ñi nga xam ni ñoo doon jéem a dox diggante sëñ bi ak tubaab bi ngir sëñ bi bañ yóbbu tubaab bi maanaam ñoo doon dox li ñuy wax euh, intervention bi mu ñëwee sëñ bi nag ni ko waxtaan naa gouverneur ba daal nee nañ daal Mbàkke bu ñu sañoon ngeen toog nag ci taabal waxtaan ba trouver trouver terrain d'entente pour mën a annuler annuler exil beeg yooyu sëñ bi ni ko Ahmadou Ndiaye da ngaa baax rek waaye jegesil jegesil ma wax la nee na muy jege si sëñ bi ñoddi ko ba seen ëmm yi laalante sëñ Tuubaa ni ko tubaab bii ngeen foog ni damaa jàpp jàpp ma maa ko jàpp daal leen dafa am liggéey bu ma war a liggéeyal Rasulullaay te liggéey boobu. tubaab bii moo doon sama jumtukaay boo xam ni moom laa war a jum jëfandikoo ngir mën a def liggéey ba daal ni ko nag yéen seen seen mbaax ak seen bëgg lu baax ak yéen ma moo tax ngeen jàpp ni damaa bokk ak ñi nga xam ni bu leen ne tubaab bi yóbbuwoon ñu dem sànku damaa bokk ak ñooñu waaye bokkuma ak ñoom ni ko nag li ma lay seerale loolu li tax ma lay wax ne bokkuma ak ñoom sëñ Tuubaa ubbi gaal gi génn xasid ak asiru daal di ko koy jox ni ko lii mayuma la ko dama la koo dénk ni ko téyel ma ko bu ma demee ànd ak tubaab bi ba ñëw danaa la ko laaj si fii ci ndar xam nga ku koo xam ni yow demagul nekk ci ci waajtaay di joxe loo xam ni garanti la ni ko yow dinaa la jox li nga téye ko ni ko diir ba may def ak tubaab bi doo fi wopp doo fi faatu moom moom tawféex bi mu njëkkaam moom si Amadou Ndiaye Mbaye mooy juróom-ñetti at yu manqué yit woppu fi faatuwu fi xam moom Sëñ tubaa garanti na ko lool ni ko nag bu ma ñëwee dinaa la laajaat sama téere bi te li si gën garaaw mooy tukki bi yëpp. Mm. avant muy dem da koo tënk ci téere bi. waaw maanaam li liy xew ci tukki baag lépp ak lañ ko def ak lépp sëñ bi da ko def ci ci téere bi muy asiru. waaw léegi nag bi mu ko ko joxee mu def ko ci taatu gaalam moom bi mu ko defee taatu gaalam Sëñ Tuubaa bi mu demee ba ñibbisi ba def tournée bi mu war a def xam nga dañ ne prisonnier même buñ la àttee prisonnier. boo demee ci ci ci kii yëpp maison d'arrêt yëpp nga xool prisonnier bu ñu la jëlee ci prison ba indi la ci palais de justice bi fi ñu lay attee tribunal bi buñu la attee ba pare dafa am looy signé di waat pour ñu mën laa bàyyi nga génn sëñ Tuubaa bi mu ñibbisee dafa waroon demande ndar pour signer loolu décharge boobu bi mu ñëwee ndar nag ci la Ahmadou Ndiaye maa bi daal di yëg ni sëñ Tuubaa ñëw na mu daw fëkk gaal ga di wër téere ba ba gis ko téere ba ñaari xaaj la ko def génn di wër ndar naan moo ma ko waxoon def na ko mi ngi nii xam nga loolu yéeme na. xam nga saa ngi dama dégg nga wax wax ju am solo. nga naan nga ne bu njëkk murit danoo xëyoon ba danga naan daan dégg sax ñu naan màggal di ko tuddi tabaskiwaat ma wax maa ngi koy wax barki démb rek mu ne euh, maanaam li ma gën a jaaxal si Cheikh Mouhamadul Fadil. Mhm. nga xam ne tey mën naa ne këram dañ taxaw nii. Mhm. maanaam xam-xam bi ko yàlla mayoon. ak kawe gi ko maanaam kawe gi nga xam ne kawe woon na ko. Mhm. ak fi ko yàlla tegoon. ak tolluwaayam. si wàllu diine dafa mel ni loolu nga xam ne Serigne Touba gisoon na ko ba doon ko corriger si mag ñi dafa mel ni loolu la xamoon moo tax mu woote woon màggal gi Touba ngir fànq baat boobu nga xam ne moom muy daan wax muy tabaskiwaat. waa xam nga Serigne Touba léppam programme la ndax sëñ bi bi mu wootee màggal dafa ni murid fu waaye nekk na ko fa def bi sëñ Modou Moussa ñi li tax wootewu ko laa lay leeralal sëñ mu Moussa sëñ Touba da ko woo tëjoog moom ni ko maa ngi dem waaye maa ngi lay bàyyi ñett. sama jumaa ji na ci taxaw ndax jumaa ji sunu borom wan na ma ko ni mu war a mel lépp daal ni ko bu ngeen ci taxawut jinne yi malaaka yi danañ ko tabax kon ndigal li ma lay njëkk a jox mooy loolu ni ko beneen ndigal li mooy fexe leen ba bu ma làqoo ci saayir ak lu mën a xew naa fanaani Touba nan ma yóbbu Touba mooy ñaareelu ndigal li ñetteelu ndigal bi mu ne ko sama njabootu bopp gi bu nu xiif bu nu mar te bu nu buul ndawal ñetti ndigal yii la sëñ Tuubaa bàyyi woon ak sëñ Modou Moussa moo tax sëñ Modou Moussa bi sëñ bi làqoo ci saayir talul woon dara moom talul woon ay woote màggal ak yooyu yooyu talu ko woon parce que moom mooy premier xalif lépp lu mu mën ngir li sëñ bi bëggoon taxaw faaw mu def ko te sëñ Modou Moussa jàmbaar la jàmbaar ngoog kooku moo tax yoonu murit si fii mu si xam nga lu tax bi sëñ bi làqoo li mu njëkk a réussir mooy jumaa ji te jumaa ji tubaab yi indi woon nañ ci ay gàllankoor yoo xam ni sëñ bi daf ni leen lu mu leen jaral yéen ba du am jaral na ma lu ko ëpp ba mu am ndax ndigalu sëñ Tuubaa la tubaab bi ni ko léegi kon oto yi du ñu mën di déparé ndakaaru port ndax bagage yi nga xam ni moom ngeen di moom ngeen di euh, commandé muy ñëw oto yi duñ ko mën di indi ak tamit euh, faaw liggéey bi ñu saytul ko sunu bopp ñoom tubaab yi sëñ Modou Moussa ni leen bisimilah ñu toog réunion bi ñu roy ñëw tubaab bi ni ko dangay ngay da liñ ko njëkk tegal te loolu ay pièges la yu fo xam ne dañoo foogoon ni murid yi amuñu doole boobu ñu ne sëñ Modou Moussa da ngay fexe ba raay bi jóge njaareem ñëw Touba jamono jooju bu doon jamono ji ay milliards la xam nga ab raay daa seer ñu ne ko boobu lañ leen njëkk a tegal beneen bi ci des mooy ñii liggéey ci raay bi ñetti junni nit la ñuy doon te bu set ceebu ndawal la ñuy lekk ci jamono jooju nga xam ne ceeb ceeb buur yaa ko daan lekk. ñu ne ko ñiy liggéey ci raay bi ceebu ndawal la ñu lekk te ñiy liggéey ci raay bi saa bu ñu wàccee di nga leen fay kenn ku ne juróomi dërëm. ci yooyu jamono waaw ca yooyu jamono. mooy daanaka na vingt cinq mille rek. ci jamono ji léegi xoolal boobu sëñ bi làqu na waaye maanaam murid yi amagunu doole googu. sëñ Modou Moussa nag loo taxoon talagula woon woote màggal talagul woon nii murid yi di def ñu koy def ndax boobu moom ndigal li ko sëñ bi joxoon moom ca la newoon. réussir na ba raay bi taxaw benn réussir na ba mboolem lu sëñ Tuubaa bëggoon muy jumaa ji mu taxaw bax ba muy làqu bàyyi na ñu liggéey jumaa ji ba mu toll ak fenêtre yi sëñ Fallou ñëw àggale ko kon sëñ Modou Moussa gàcce ngalama moom lépp mooma waaye sëñ Fallou nag bi mu ñëwee mag ñi tamit dañ ko woone ko Mbàkke dëkk bi dafa metti te da woote jumaa ji bëgg liggéey bi àgg ndax sëñ Modou Moussa nga waxoon ni moom la sëñ bi joxoon digal waaye yaa ko war a àggali ñun nag taluñu lekk taluñu naan maam taluñu liggéey bii lekk ak naan lañ tal ndax dëkk bi daa métti ca la waxoon ni xaaraleen leen ma ma dem ba wax ak borom baraag bi te ñëw ba mu ñëwee ci la woowee mag ñi ba ñëw mu ne leen sant leen yàlla dem naa gisee ak borom baraag bi bis di tey kollu dadd jiba muut dara dërëréer fàllu galas tubaak njaareem daan leen liggéey bii dana àgg dëkk bi dana neex li ngeen bëgg yëpp dana am sëñ bi la mu njëkk a def sëñ fàllu mooy fexe ba dundalaat dëkk yi mu sancoon tàmbaliwaat mbay mi woo mag ñi kenn ku ne mu daggal la kër ci Touba ni la damaa bëgg la sëñ bi bëggoon muy màggalam gii daa am lu koy jiitu mooy kenn ku ne am kër ci barabam bii di tuubaa nga xam ni sëñ Touba da ko mës di bëgg sëñ Fall loolu la njëkk mooy fexe na ba mboolem luy seex mu tabaxal maam mu daggal leen kër ñu wër ñu wër jumaa ji xam nga ko dëkk bala nga faa faawu am ñu sanc biñ sancee ba seex si sanc ku ne sanc sëñ Fall nag doog leen woo ni leen la sëñ bi bëggoon nag mooy murit yi ñu rassemblé wu ndax màkkakat acee fa am jullit yaa fay dajaloo moo tax doole am fa waaye léegi nag dëkk suñ tubaab bii ginaaw sëñ bi fii la nekk ci saayir faaw ñuy dajaloo di fi woote ak màggal ci la sëñ Fallou njëkk a wootee màggal moo dem ba indi màggal mel nii. kon xam nga ne euh, li nga xam ne moom la état yi nga xam ne moom li nga xam ne moom la état àdduna yi yëpp. ñàkk réussir kon mën na ne Serigne tubaab bokk na si ñi ko njëkk a réussir muy employé des waaw xam nga Serigne tubaa lu mu njëkk réussir moo la ko tey mooy xol yu nangu xam nga xol bu nanguwut borom du mën a jëf te xol mooy mooy jëfaloo nit am Sëñ tubaa fexe na ba murid yi seen xol doon benn fi ne dama lay gis tey xam la tey mu mel ni téeméeri at lañ xam lañ xamante lu gaaw gaaw dañuy miinante ba fi ne mën nañoo ñemante ba kenn ku ne ñeme sa moroom loolu Sëñ tubaa da koo réussir te loolu yonent bi la ko suñu borom defaloon. waaye Sëñ Tuubaa dafa ne la suñu borom nanguloon yonent bi ginnaaw moom man la ko nangul dootu ko nangul kenn xoolal li ma lay wax li am ci yoonu murit am ci kër Sëñ Tuubaa amul feneen beneen bi ci des mooy. sëñ tubaa fexe na ba dëkk bu mu am moo ko moomal boppam nit mosu ko moom bu la neexee tàmbali lim dëkk boo wax ma wax la la mu ko sancee njaareem ba mu fa demee résidence surveillée teewul daawoo ñi nga xam ni ñoo moomoon suuf sa benn pël bu daan sàmm nekkoon fa sëñ bi ni nañu waxtaan ak moom bi ñu waxtaan ak moom ba pël bi ni leen mën naa leen jaay barab bi ñu jaay ko barab bi sëñ tubaa daal di koy def titre foncier moom ko sëñ Modou Moussa boo gisee li maxtu may am mooy sëñ Modou Moussa bi mu ñëwee lim njëkk a lijjanti mooy titre foncier Touba. jël kayit yooyu ak kayit yi nga xam ne mooy décret yi mu signé woon ak tubaab yi ci liggéey jumaa jeg yooyu moom la def lu woon benn maxtume daan ci def lépp di ko takk ngir bañ maanaam liggéey bi sooxe wala li li ko suñ tubaa sasoon dara am ci lu luy sooxe nga xam maxtume mi daawu ko summi dégg naa bu daan bu daan tëdd sax moom la daan tëddaale ngir bëgg liggéey suñ tubaab yi dara bañ cee laal suuf li suñ Muntaxa di wax naan liggéey bu mu laal suuf loolu suñ Moodu Musaa ko waaw loolu weesoo xam nga ku nekk day wax ne euh, fa nga bokk da ngay bëgg chaque jour ñu la koy waxal. Mm-hmm. xam nga man daar Muxti laa bokk. Ah, Birahim Faye Issa Moussa Beyti borom pencum boppam ma bàyyi mu doog ay moom sa maam xam nga moom moo moo moo moom moom laa yaakaar ah, dama bëggoon nga ñëwal ma si moom tuuti waaw kooku mooy yoonu murit ah. maam Thierno bu yoon wi ak seef moom la ndax Sëñ Tuubaa bi muy jógee Mbàkke Baari gii di dem wuyu Ndar maam na lu yónni woon te ba mu ko yónni da ko woone ko no mu ne ko Mbàkke mu ne ko toogaay bi nag yàgg na liggéey bi jot na yont bi feeñu na ma fii ci ci Daaru Xudóos ni ma boo génnul tuubaa ñaar la ko yont bi njëkk a wax liggéey bii nga bëgg ak maqaame mii nga bëgg ñaar ñoo la ko mën a xañ mooy dëkk bii nga nekk ak sa ndijaay jii fi nekk muy sëñ Mbàkke Buso ni ko ñaaree am da ngay gàddaay génn dëkk bi sëñ nijaay ji it sëñ Mbàkke Buso faw mu génn àdduna ngir nga mën a am ndax suñu boroom nee na dalaa da koo rus moom sëñ nijaay sëñ Mbàkke so ba ay nattu du la ko mën a teg ndax li fekk sëñ Mbàkke bi sëñ Mbàkke Buso làqoo moom mu gàddaay dem Mbàkke Baari bi mu xëyee woo maam Cerno ni ko dama lay yónni ndar daan ni ko fa ma lay yónni nag Cerno mu ne ko waaw mu ne ko ndax am nga fit maam Cerno ni ko Mbàkke ñun loolu ñun sa ndigal rek la ñuy xaar daal ni ko boo nu joxee ndigal kum mën a doon ci àdduna duñ teree jëfe si ndigal maam noo ëppoon fit ci àdduna te loolu li ma la koy seerale mooy bi mu àgg bi mu bi mu waajee maanaam bi bi maam Thierno sëñ bi woo ko ba yónni ko maam Thierno dafa bëggoon dem summar ñi yére yi ndax boobu yére yi la soloon bi mu demee bay waajee summar ñi ko ak saa Thierno mënu ko waaw ko nii moo ma gënal nii nga nii nga mel nii waaw jekk nga ni ko nii moo ma gënal yére yi yi nga sol ngay demee maam Thierno dem bi mu ñëwee ma nga àgg ndar ay waxtu tisbaar fekk fekk euh, gouverneur heure yooyu lañuy ñuy dallu heure boobu kenn du leen déranger maam Thierno ñëw ci bunt bureau bi fekk fa vigile yi fay garde mu laaj leen ni leen ana gouverneur dégg naa sax benn waaye wax ca wax ju xaw a kii daal ni waa kii moom nga xam ne ab ab na ma yàlla jegal ñoo gi tuub ci wax ji ab nit ku manqué lay nuróol ñëw naan gouverneur laay seet kii xam nga wax ngeen ko boppam maam Thierno nee na ma ni tekk rek ànd ak sama dal ndax xam naa ki ma yónni man. jamono maqaamalal xamul. barki sëñ Touba maam Thierno def tekk ñoom ñuy waxataan ak moom maam Thierno indi indi leen xatiir nag ni leen du ma fi jógee te gisuma gouverneur coow li ni kur ba gouverneur ubbi fenêtre yi daal di leen lu xew ñu ne ko kii daal nee na dañ ko yónni ci yow te nee na il faut mu gis la gouverneur ni kon yóbbu leen ko saal bi biñ ko yóbboo ab entrepreneur la njëkk indi ni ko laajal ma ko ku ko yónni ak lu mu ko yónni maam Thierno ni ko nee ko Cheikhul yi ma ma yónni te ci moom mii la ma yónni nee na mu ne ko lu mu ko yónni mu ne ko ci bataaxal bii la ko def te du ma ko jox mbindéef gouverneur ni nañ ko jox palaat ñu teg ko ci ndax ñoom boobu der bu weex du laal der bu ñuul boobu tubaab du laal nit ku ñuul mu indi palaat ñu ne nañ ci teg lettre bi pour ñu jox ko tubaab bi maam na ni ko lettre bii sama loxo sa loxo ndax suñ tubaab ndigal loolu la ma jox tubaab bi ni kii kan la ñu ne ko rakki borom tubaab la mu ne kii de segam moo mel nii tey rakkam kon moom bu ñëwee nu mu mel kon maam Thierno fa la fit yem yow lu toll ni jamono jooju gouverneur boobu nag du Sénégal rek la coiffé woon mhm. mooy Afrique occidentale la coiffé woon nga xam ni lu ko neex def te dara du ko ci fekk maam Thierno wax ak moom kàddu yi dëgëre nii waa ji takk gant mu ne na ko na ngay summi sa gant yi boo ko summee ma doog laa jox lettre bi <laughs> kon maam Thierno sëñ bi ñun li am moom lañ koy sant. ndeysaan mi ngi noonu sama yaakaar ak yaakaaru Saliou Khoule sama xarit ba waaw <laughs> mi ngi noonu sama gars yi kon man ba tey du ma si yem ak yow léegi dama bëgg nga ñëwal ma si li nga xam ne màggal gi programme màggal gi si biir këri sëñ bi ak nan lay demee. waaw fii nag moom da ngaa ñëw kër goo xam ni kër Mouride Sadikh la ma wax la ko ba noppi. Mhm. kii fi ne di sëñ Abdou Karim yàlla dimbali na ko ba doxin Mouride Sadikh lay doxee mhm. moom saa ne day ni dëkk bii di nit ñi du ma fi def du ma fi dindi. ab taalibe dongu laa fi ni fi taalibe yi nekkee dama fi am kilifa muy sëñ aboom sëñ Fall fii laay toog bu sëñ bi waxee fi tasu daal laa mën ni est ak jëfe ndigalam kon du ma fi dara loolu saa su koy wax te loolu mooy jikkoy murit saadix daal ni nag mooy sama kilifa waaye moom siñ mu Muntaxaay kilifaam kon dëkk bii du Tuubaa amatuma fi sañ-sañ liggéey bii nga xam ne moom lay liggéey muy makaarimal axlaax doon loo xam ni yonent bi la ko sunu borom tàggee woon muy jikko ju rafet sëñ bi ni dafa jot ñu folli mbon fal mbaax jikko yu ñaaw yu ñu amoon ñu fexe ba sumar ñu ko def ko jikko yu rafet kenn ku ne li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom loolu la woote. loolu it moo fi dox màggal gi nag na ko sëñ tubaa digle rek moom la koy defee sànq junj naa la ko nee naa la la sëñ tubaa limoon yëpp def na ko te xanaa mu boo dee lim ginaar ba gileem boo calculer seeni tànk juróom-ñett maam fukki tànk la ak juróom-ñett mu tombeek limu 18 safar bi sëñ tubaa wax. waaw kon moom it loolu lay dabu muy ngërëmal sëñ Tuubaa fii it moom la ñuy dabu ndax soxna may mii mooy taawam tànk yi sëñ bi awoon moom sax bañ na ko borom waañ wi lañ koy wax tànk yi sëñ bi aw ci liggéeyal sëñ tubaa tànk yooyu la aw mooy représenté sëñ bi Europe ak Amérique ak Afrique fépp sëñ bi moom lay dem ndax sëñ bi mës a tukki ni nga koy gisee nii mës a yëg avion te lépp fii la ko fekk kon de xanaa Serigne Touba karaamati xëtti yeddi yi mu doon wax moom moo dellu si waaw mu ngoog maanaam Serigne Touba saa su ne day wane ay karaamam ci ay njabootam moom mii kenn la ci ñoom li ma la wax ne ni la murid saadix la ku jaxasoog moom di nga ko xam ndax ñun yàlla dimbil nu ba 1987 li may wax teel laa koy waxee laa ko xam doon lu ndaw tu tànk te laa ko xam te nii mu mel la ma sa mel mm. sëñ tubaa la ma gëm di ko liggéeyal yëg ko sëñ Fàllu di buntam di léppam ku fi nekkal sëñ Fallu yow lay xooli sëñ Tuubaa waaw te looloo ak murid nag waaw. waaw ginnaaw bi loolu weesoo dafa am benn question boo xam ne da nga denc di ko di wax Serigne Touba lu mu la defal papa. ko loolu moom mënuma ko lim moom daal la ma defal. may ma si benn. wuy ma ki tax nga gën ñoo wartoon a gën. Ah. kooku mënoo ko weccewu dara <laughs> foofu daal laa yem. Serigne moom lim ma defal. ba àddunay tukki mënuma koo décrire moom eh. kon ñu lay jaajëfal. benn lay lii ndax bi bi bi ngeen accès foo ma ne woon sori na fa lañ ma woowee ma ñëw te ëpp fi xam-xam gënu fi kenn benn la ci lim ma defal. waaw mu ngi noonu lay jaajëfal bu baax jërëjëf jërëjëf bëgg nañ lool. suma ah, sama waay gis nga comme ni ko gisee sànq léegi ñu ngi fi dalal benn ndaanaan bu baax. sama xarit la xam naa damaa bëgg xaritoog moom sax parce que dégg naa sëñ Cheikh Seck dégg naa ci moom benn xam-xam bu yéeme boo xam ne waaye dara dama see neexul bi mu duggee fi nga xam ne fa laa bokk muy Ibrahim Fatim Mesa Bayti borom pencum boppam ma maa ngi wax ne bàyyi Modou ak Aydara papa maamu Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni waaw kon foofu dafa neex foofu moom boo fi appuyé woon fi ba suba du ma la dagg sëñ bi dafa maam sëñ bi moom daa bokk daaru ci wàll waaw ndax mook sëñ Modou Kara bokk nañ benn néeg ñaar fukki at lii nag sëñ Modou Kara ma ko wax ci làmmiñam man moo ma ne sëñ Abdou Karim bokk nañ nekk kër sëñ Assane Mati Bal fii ci Thiès lu ëpp ñaar fukki at ni ma nangu naa ko ko mag ci yoonu murit waaye nangu mu ko gën loolu sëñ Modou Kara ma ko wax. ak yeneen ak yeneen yoo xam du lu ñuy wax ci télé. Ah. waaw. ay ci jaajëfal na la Paa. jërëjëf bëgg na. Modou Modou yaay de Fall Modou yaa baay dëgg la nga doon ñaan Fall yow am nga ko Fall dëgg la Modou yaa de Fall ñibbil baay ngalam nga doon ñaan am nga ko dëgg laa ilaha la ilaha illallah yaga bax la ilaha fal illallah la ilaha Bienvenue sur Salam Vision. Salam Vision laa leen di tegal nii jàmm ju ànd ak vision fu sori waaw mooy Salam Vision yéen xamante ni yi ni koy seetaan dama lay digal nga teel a dem gaaw abonné ci Salam Vision